gis ngeen de mu ngi nii actuellement ak Kouly waaw mais gis ngeen ndox mi ndox mi jamono ji bari mu bari voilà oto bi déjà mi ngi ci biir ndox mi voilà lii xaw na dina nag voilà gis ngeen de ñu ngi nii actuellement à Koulik waaw mais gis ngeen ndox mi ndox mi jamono ji bari mu bari voilà oto bi déjà mi ngi ci biir ndox mi voilà lii xaw na waar trop nag